asalaamaaleykum suñu mbokk suñu njaboot di sant yàlla bu baax di la jënd ah di am mbégte nag ñëw fii tey parce que mooy suma guléet yàgg naa ñu New York tey la yàlla dogal ñu def sama tànk ñu ne léegi dama di président damay xool ba si àgg. ma sant yàlla bu baax sant mu doon loo xam ne dëgg yàlla damay xaw a tuuti àdduna bi mais li ma gis ñu koy sàmm ñu di ci bëgg trop moo tax maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak sant di leen gërëm di leen sant di jéggalu ci tardé parce que na xam nga ñun doom yi ñun ponctualité la ñuy yare wax dara mu dañ day xaw jafe ci ñun donc ñuy jéggalu ci loolu di rafetlu aussi teeru bi di rafetlu ni ñu fekk ngeen toogee ak li ngeen doon def bu nga président waxee ñi fi jógee ma gis leen léegi ñuy dem sama xel dafa gën a dal vocation ak liggéey bi ngeen di def yàlla yàlla moo ko bi nag dafa doon lu lu bari li ko lal ak li ko wund ak li ko sumba mbégtewu ñëw ànd ak xadigéey la wax na leen ko xadig bi bu sëriñ Abdou Xaar xadigéey doomu ndey la di ñuy xarit ay doomu ndey la soo nekkee nit bi ngeen nekkee pionnier ba léegi dañuy bëgg a yàgg loolu mooy te ba léegi yàlla ñu ngi koy defar yàlla ko yàlla gën a dëgëral lépp lu ngeen wax ci moom rek fàtte ñu am na lu ngeen ci fàtte même ñun sax yenn saa ñuy dem kenn mën mais loolu mooy xale bi ful la fayda na ko ci lii mu ne que ne que mu ñu fàttali ki ngeen tuddee ndey daara càmmiñam loolu muy wax Malick Kassé ñun moom moo yarandoo xam nga ñun dañoo def politique dama wax ni comme daara la pour ñun parce que damay wax sànq imam maa ngi koy nuyu léegi di ko ziar di ko sant di ko ñun politique moom ak daa jaamu yàlla la ñu yemale am na lu ñu ciy jomb ak lu ñu ciy na lu lu lal suñu dugg politique mângând cum mâna, sârcă, căsăr, căsăr, căsăr, căsăr, tă de frăcă e ala ta. Nim zi, n-am de la ce ole li la bukador. Dinci dugu ken amul on helbo. Lunti amre daf ñoo da. Nu cër ñoo tax ñu wër. Moo tax ñu am tuuti problème ci li politique bi de demee nii. Parce que nag bokkul wuute nañu et c'est ce que je dis o caméra bi man leen nañ nangu ni ñu la ñëw du ci benn du ci yar bi du ci julli bi du ci jàng bi du ci xam-xam bi du ci ñu xamee politique bu ñu am complexe doon li ñu doon nit ki li mu doon Dakar nangu béykat nee na soo bañee li nga doon def fekk nga jëkk bon donc faut toujours assumer ce ñëw fii nag ñu sant yàlla

Parce que vous êtes la synthèse de ce à quoi on aspire dans ce pays li ñuy yéene li ñu bëgg li ñu nësal li ñu bëgg yéen yéen a koy doxal nekkal te yàlla rek a tax rafet na liggéey bi rafet na mais surtout liggéeyam bi moo rafet te yàlla na yàlla mottali man day bi ma duggee sànq dégg naa lool ባለበት bagi ላቀው gila apa, kita ጋይ ini benar. መጀል ወለ ፖለቲክ ቢ ቢመ ኢማም politik di wax léegi ñoom Paa Abdou man ko ñun mun ñu wax Alaaji Abdou Paa Abdou rek la ñuy wax parce que dañu bokk ci njaboot bi mais li ñu gëm mooy li ngeen nekk nii lii mooy dëgg te lii rek lay dëgg li ngeen nekk moom dëgg te lii te li li ñu gëm mooy lii ngeen dund fii bàyyi ko fële ñëw fii dund ko fii te ëppale wuñ leen dara te na ngeen bàyyi fële suñ leen toppee dooleel leen billaahi wallaahi taalaahi mën na gën ñu réew ñu ko kanam réew yu bari xool leen tous les pays d'émigration espagnol portugais italien ba ci marocain yu C'est seen diaspora liggéey seen C'est seen diaspora Mali chinois coréen ba ngay 10 millions sénégalais bu dëkk États-Unis yóbbu ko fële nga jox 10 millions mu liggéey lu ëpp loolu il faut que ñu nangu wóolu suñu bopp c'est ça notre travail et vous êtes un pilier essentiel si ci ku bëgg tabax Sénégal si suñu leen boolee utal leen place pas ngeen bokk de noonu da ngeen dañ leen di da ngeen di jël seen place réew mi mën na ci am doole parce que li ngeen def fii ci ñaar xale su dajee ni ñuy delloo leen ci yàlla ñu gëm seen bopp xam seen bopp xam seen diggante yéen ñi seen bopp xam seen diggante yàlla te loolooy nit te yàlla na yàlla gërëm leen sant leen ah li ngeen di liggéey nag yàlla moom dama kontaan parce que dan daan tooñ toujours euh, sëñ Abdou Alamine ak borom daara ji man nga gis nga yéen ci liñ ci jànni seen wax bari xanaa xool leen ni waa Tuubaa di def xool luñ ci ñoom ma yow xamoo lu bari toogal ba ci kanam li nga xam ne ñu ne ñoom benn lañu <laughs> ñu ne ñoom ñoom nañu defee ak ñun ni ñuy defee

ku ci ci root di ci tànqe mën nga tabax Sénégalu ëllëg man loolu laa gëm en tout cas li ngeen di liggéey du pour yéen pour ñun ñun na tax ngeen def ko moo tax mën nga ñëw tey nuyoo si d'abord ziar si mais surtout root si root si Hmm? <laughs> Eh, ah, eh, ah, rot mm. si ñu dër kii kër Seydi Hadji Maye la. rot si ñu dër dama rot si. waaw ba mu fees dell na. ba pare nag rot. parce que nag xam naa ni fii la. donc loolu moo tax daal. ñëw fi doon mbégte bu rëy. Khady Gueye nag mooy sama seet. parce que suñu génération dañ ci am ñoo xam ni dañu xaw mel nañu mel. mais parce que ni ñu seen jikko la. lii ngeen di def man dama ko gëm ba dama xam ni. ëllëg si biir su yàlla defee li ñu sóobu ku leen dooleel réew mi ñoom kanam parce que stratégie ba laa foofu ñu jàppale leen mais surtout jàppale leen jàppale suñu bopp la parce que c'est ce que vous faites est entier yaa xàmme ràññee jàngale formé lépp gis ngeen di liggéey am taa dégg naa trop li ngeen dugg nag bokk nañ su ngeen ñu boolee bokk nañu su ngeen ñu boolewul bokk nañu par force te maa ngi ñaan yàlla ni su ma duggatee New York il faut mu may ma ñëw ba fii barkeelu si mais surtout nag la ñuy sumb ak yéen ngir ñu ànd di ko dox pas à pas ak lu yàlla mën def ëllëg nag parce que yàlla rek a joxe mais su yàlla defee leneen it feneen fu ma cene ak lu ma ma nit damay bokk si Euh, jërëjëf président Khalifa Babacar Sall bu taxaw Sénégal jërëjëf ci kàddu yi nga fi yëkkati waaye jërëjëf Adja Khady Gueye Abdou Khadre euh, dañuy rek yaatal kàddu gi jox ci ku dee sa cër Cheikh Ahmada Tidiane Niang mu ngi laaj kàddu waaye président kàddu yi nga wax gàtt na waaye kàddu yu matale la kaddu yi wone fi nga bokk la waaye koo kaddu yi ku bëggum réew la waaye kaddu yi kuy sàpp ñaan la ndax lu war ak julli lu mu bëgg ñaan mën na ko koo may suñu dogo te ñëw nga fii ngir sàpp ñaan da ngaa root si yaakaar naa ne mag ñi daan la rotal te président nee na rootal la ba mu fees ndax loolu li koy war ne nar nañ daa rotal tey mën naa ba ngay bëgg suñu borom am na foo xam ne da nga koy àgg mu doon lay jox nag mbir mi yàlla def na sa teewaay ci zawiya bi mu ngi door a door waaye bëri na ñu jiite sa réew ma ñu ne benn ne ñaar ba ñuy jiite réew mi toog nañ fii nga toog fekk ñu ñu xàddaratul jumaa ñu ñëw toogu ñu sàkku ñaan bëri na ku jiite assemblée générale bu Sénégal assemblée nationale bu Sénégal ba nga koy jiite ñëw nga sàkku fi ñu may ba ci jiitum réew mii nga xam ne moo fa rekk tey keroog fii la ñoo toog ak ñoom ba ñuy wasifa lam bëgg mu ñaan ko ñu may ko ko fii ci zaye Seydi Hadji Malick kon nag la fi ne mu ngi fi te mënuñ koo jox ku ñu gisul te alhamdulilahi rabbil alamin